bisimilah alhamdulilahi rabil alamina bu ñu sante yàlla julli ci seydina muhammad salaa sallam dañuy sant bu baax a baax a baax sëñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Mbàkke bu ñu mayaatee ñu ñëwaat fii ci jumaam ji tedd ji doge fii koor di ko sant bu baax a baax a baax a baax di sant ki nga xam ne moo ko fi toogal muy sëñ Mountakha Mbacké Bassirou yàlla may ko gudd fan gu ànd wér mu fekkee lépp di santit ñi nga xam ne tey ñoo yore daayira xidmatul xidma bi nga xam ne sëñ Afia Bousso moo ko jiite gis ngeen sama côté ñi fi nekk mooy sëñ Ablaye Bousso loolu jagleel la jagleel weesuwul nga am bernde boo xam ne ci weeru koor nga lañ ñëw ñu tànn la ci ci tànneef yi ne la kaay dog si fii loolu amul njëkk amul prix bu doon lu ñu mën a jënd la nit dina ko jënd waaye loolu mënuñu ko jënd donc damay jàpp ne rek euh, feddali kóllëre rek bi nga xam ne moo dox moo dox sama diggante waa kër gi loolu ma koy sante bu baax a baax a baax a baax sëñ Touba euh, ndax li ma fi gis tey ànd seeg samay samay mbokk ñu jóge Dakar ñëw gis nañ ne taw féex la déglu nañ fi conférence boo xam ne Eh, seen Cheikhouna eh, Mbacké wudul adul wutut moo ko doon def mu ci waxtaan jàngalu jàngat sëñ Touba ak jàngatu àdduna ak jàngalatu lépp lu nga xam ne tawféex la ak diine la muy conférence bu ama amam solo boo xam ne damay ñaan ñu nekk koo xam ne daal yàlla mayu la chance nga fekke ko nga xool ko ci eh, télé internet yi nga seetaan ko te di wax ne daal li ma fi gis moom ci ci conférence boobu rek wane na Touba ñàkk fee ñëw ci weeru koor gi ah euh, du lu gën daal ndax euh, loolu bu doon lool rek la da dal day na koor gi ma jóge fiit euh, gis bernde yi ndax weer koor ñëpp xam nañ ne ndimbalante la ci yàlla di xaar ci ci ci jaam yi waaye li ma gis fii ci Touba tey xamoon ko nag bu baax ndaxte nag loolu ñëpp xam nañ ko waaye day day firnde rek beneen bu firnde bu wóor ndax ne tey li ma fi gis ci ci wàllu xéewal ci dog euh, defe naa ne képp ku dugg tey Touba comme yeneen bisi ak yi di ñëw ah defe naa ne doo jooy dara ci lekk doo jooy dara ci naan ndax lekk gi am na solo euh, sell na te baax na ndax baax na ndax docteur lañu donc gis naa lekk fi lañ fi liñ fi joxe dem na ba mi nga xam ne même ku fi diabétique ci koor ñoo xam ne dañuy woor te am diabète te ñu dañuy woor te ñenn sax nga xam ne woor wàcc na leen. préparé nañ leen ba nga xam ne ñoom sax mën nañoo dogu ndax am na lekk yu suukar am na lekk yoom suukar ba ci lépp lu ngay xam ne suukaru jabet la am na ci donc ndox ma bu doon neexoon sox ñu jox ndox robinet waaye day am loo xam ne dañ koy day baax ñu ñu ñu leeral ko boo demee bañ lay jox ndox Evian xam nga ne ñooñu bu ñu sañoon lépp taw fex lay doon donc daal euh, may ñaan yàlla képp ku nga xam ne taalibe nga loo defal tuubaa rek bu ko xep ndax xam ne lépp ci jaam yi lay dellu parce que ñi ma fi gis ah man de ñi ma àndal ñëw Dakar ba fii ñëpp du ñuy murit de ay jullit lañu waaye ci kër gi lañ bokk rek te leer na ma ne ñi ma fi gis ñuy dogg fii it du ñu taalibee euh, sëñ Tuubaa rek de mais ay jullit aqi nañu nekkul sax ñenn ñi nga xam ne duñ jullit waaye xéwal jot na ñuy war see baar barkeelu loolu nag ñëpp ñi nga xam ne sëñ Tuubaa ñoom la ko dénk muy sama sëriñ sama xarit sëñ Afia ak njabootam bu sobi a ah, war nañ leen gërëm sant leen téye nañu liggéey bi nga xam ne rafet na ah, ah, man de su ma doon ne mënoon naa toog fii ko eh, jeexale fi sama woor day xam ne ti xéwal rek laa fi fekk ndaxte nag wax wax dëgg yàlla bu yàlla tax rek ñuy wax lépp mu ngi fi dara maa fi ku fi dugg ñu nekk sama ginnaaw du ma bàyyi ma wax leneen lu sul noonu wax dëgg yàlla yàgg nañoo dog koor waaye lu mel nii ah fi ñu koy gis bariwul waaye loolu nag eh, jàngat la rek boo xam ne sëñ tubaa da koy defal boromam. ndax di ko fekk si fi nga xam ne euh, borom bi subhanahu wa taala foofu la ñu fe foofu la foofu la ko laaj boobu ba léegi nag moom la njaboot gi di dox maa ngi wax ne maa ngi ti yàlla bu baax a baax a baax bi ma mayee ma ñëw fii doog si koor ay ñaan fii ñëpp xam nañu fii ñaanu bërëbu ñaan la te am nañu yaakaar ne lu fi ñaan yàlla ku fi ñaan yàlla dina nangu donc lépp li nga xam ne ñaan nañ ko fi ci Touba sëñ Mountakha ñaan ko ñoom sëñ Afa ñaan ko. képp ku fi sëñ Touba teg damay jóge sax tuubaa wax képp ku fi yàlla may nga dugg fii lépp loo fi ñaan yàlla ko yàlla nangu yàlla yàlla def taw feex ci Touba yàlla na yàlla def taw feex ci ci Sénégal yàlla na yàlla taw feex ci àdduna ndax liñ fi ñaan du pour Sénégal rek dañoo ñaan pour àdduna jàmm ndax xam nañ fi ñu fekk xam nañ luñ fi gis xam nañ lan lay jëriñ donc maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax ne wax euh, sama xol sedd na ñi ma àndal sama xol sedd bi ngeen gisee liñ ma jox xam ne xéwal mënu ko am meesu lépp doyoon na waaye ñu jox ma ay jàngat sëñ Touba ay ay conférence yu nga xam ne ci ci ci ci ci ci koor gi la ak li nga xam ne lii mooy mooy Touba mooy écharpe bi ngeen di gis nii defe naa liñ ma jox daal mënuma lu dul ndax de di sëñ Touba bu baax a baax sant naa la leen yëpp jërëjëf wa salaam. asalaamualeykum ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen di ñaanal. sëñ Muntaxa yàlla na fi yàlla na ko yàlla may wér ak gudd fan fekkee ko eh, daayira bi itam liñ fi fekk wax dëgg yàlla kontaan nañ li porof wax rek ay doomu jullit ñoo fiy daje di xiwlu kon gis naa lu ma yéem tey ndax wax dëgg yàlla xam naa Tuuba xam naa li fi benn mais mosuma fe ñëw ndogu waaye bi ma fi ñëwee tey li ma gis xam naa ne lii Sénégal mooy lii kon noon nañuy jëlee référence état Sénégal sax mënoon naa jëlee référence ci Touba li ma gis nii tey wax dëgg yàlla sedd na xol te lii mooy yàlla ku kuy wut yàlla boo yegg see fi rek xam ne yegg si nga palaasam moo tax ma yegg see dama ne prof nañ ñaan suñu soxla ndax ku yegg si ci béréb bii xam ne borom yàlla beddil na ko ku yàlla baddil nag boo yegg see ci bérébam loo ñaan yàlla def ko yaa xam nam nam koy nangoo mais loo ñaan rek fii lu fi waay ñaan yàlla dina ko def ci barke sëñ Touba. wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal seen taxawaay rafet na yàlla na ko yàlla saxal yàlla na ko yàlla saxal ci darajay nabil Moustapha jërë ngeen jëf kontaan nañ ci yéen a